seetaan ci télé Sénégal TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme nag niñ koy defee saa su di dugg ci réew mi di seet ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi nekk ci réew mi tey nag dañoo daal di seet si waat ki nga xamante ne nag mooy. Serigne Ibrahima Niass Serigne Ibrahima Niass nag yaakaar naa ah, doonatul kuñ leen di présenté ñu ràññee lool ci li nga xamante ne ah, moom lay liggéey ci wàllum ñaan yàlla waaye it ci wàllu eh, paj waaye tamit di doon koo xamante ne dafay faral di àddu lu bëri ci li nga xamante ne ah, mooy eh, suñu actualité réew xam naa rek foofu sax la ñuy daal di li nga xam ne mooy waxtaan bi waaye laataa loolu rek dañ koy daal di bàyyi mu nuyoog eh, mbokk yi sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar. Euh, ñu ngi lay fay di wax baax auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiya sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbooleem ku ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew di ci nuyu góor ak jigéen mak ak ndaw di leen massawu coono ci li nga xamante ni mooy ramadan bi nga xamante ci lañ nekk nga xam ne ñu ngi ci fin bi Mm-hmm. alhamdulilahi rabbil alamin di ci ziyaar ñëpp di ci màggal ñëpp di ci ñaan yàlla lépp loo ni nit jaamu na ko ci yàlla yàlla nangu ko mm-hmm. te ful ko tamay ñu fekkee ko ay bari ci daraja yonent eh, di door waxtaan wi sëñ bi eh, ne eh, ki nga xamante mooy Ousmane Sonko kii di Mame Mbaye Niang daal dinay def appel ginnaaw bu mu defee appel nag daal dinañ ko koy accordeel ci bu gaaw ba tax nag nga xamante ci la ñu jëm muy altine incha allah ci la ñu war a jàkkaarloo waat ci procès en appel bi euh, tey euh, procès boobu lan lan lan nga gis li nga xamante ne mooy procès boobu ak ni mu demee. waaw alhamdulilah rabbil alamin santaat yàlla xam naa ne bari nañu ci tiit ñuy woo ci réew mi ak ci bitim réew. Mm-hmm. di ñu ci ñaanloo wala di ci wax di ci déglu it suñu xalaat. Mm-hmm. Euh, waaye la ñu waxoon démb rek tey moom lañuy ñuy beesalaat. Mm-hmm. ku ñu yàgg topp yàgg ñoo wax. ñun moom dëgg lañ faral mooy waqulil xaqu ka kaana muran yàlla daf ñoo bind te kenn ku nekk war nga xalaat ëllëg ne bis dina ñëw ñu wàqi bam xóot ñu hmm. dugal la ci bàmmeel suul la romb lay jàll hmm. suñ la rombee jàll nag ñi nga xamante ni ñoo fa ñoo la suuloon jàll hmm. su fekkee ne lu leen neex nga doon wax wala li nga xamante ni moom mooy eh, sa alalu poos moom nga doon def ndax suñ la wéetalee romb la fan ngay féetewoo suñu borom subhaanahu wa taala lu mat a bàyyi xel la eh, procès boobu lañ daan wax ci procès Adji Sarr ci lañ nekkaat ba tey nii rek lay mu jeewaat toogaat ba mu yàgg ñu toogaat ba mu yàgg ñu naan déggatuñ procès ba indiwaat beneen ci rek lay mujjeewaat ah, incha allah waaye yaakaar nga ko procès bi moom moo gën a moo gën a doy waar procès Adji Sarr de ndax gis nañu na jël na mën nañu ne presque ay euh, mu ngi bëgg a def ay at waaye procès bi nga xamante ne moo di procès Mame Mbaye Niang hmm. gis nañu ne euh, tolluwul foofu te fi mu tol nii appel bi nga xamante ne am na ci sax gis nga ni mu gaawee kon est-ce que ñaari procès yi benn la waaw xam nga lu tax hmm. am na jamono jamono procès Adji Sarr bi hmm. am na jamono diggante woote di dégluwante témoin yi dafa xawoon a jege. Mm. suñu woowee kii rek ñaari fan ñu ne woo nañ kee mm-hmm. ci jamono jooju ci la affaire yi gaawoon ci la yëf yi jeexee mm-hmm. bii ci la affaire yi commencé waatee gaaw su gaawaatee rek jeex na mooy yàlla mooy dogale noon ku jàng alquran mm-hmm. euh, am yàlla daf ñuy nettali ci ay xasida ci yu bari àdduna lépp lu fi jaar nii rek am na jamono fu mu fekkee woon histoire bi ñi nga xam ne jàng nañ euh, ñi xafisul quran wala ñi tafsirul quran wala ñi ay nit ñoo xam ne yàlla may na leen ci dara ci lu luñ jàng ci alquran daf leen di indil ci diggante mm. Muusa ak ki nga xamante ni moom mooy Firawna mm-hmm. Muusa ak Firawna moom la histoire bii di ñëwaat da nga demoon ba nga xam ne da foog ne yow soo koy jàng da nga foog mënul mucc mukk ci Firawna ndax Firawna état la woon yore ay renseignements généraux ci dëkk bi yëpp maanaam lu nit def tëflit sax soo ko defee Firawna fa mu toog ca palem ba xam na ko firawna yàlla may ko doole nit ñi di ko jox ay xibaar di ko wax te ku mu bëgg tëj tëj la te terewul Moussa moo nekkoon opposition boo xamante mënul ko dara ba mucc ba Moussa nekk ki nga xamante ni moom moo mujj ki yoon euh, firawna mhm. euh, firawna amoon na doole doole ji mu amoon ba léegi kenn amu ko ndax anna rabbukumul axlaa la waxoon dem na ba mu yàgg mu fëgg dënnam ne man ma yàlla kuy seet yàlla ñëwal seet ma mujj gi nit ñi di ko jaamu di ko def yu baree baree baree bari te terewul yàlla bi mu ko ci naree naxasal ëf rek la def mu dem hmm. kon lii ay pexe la yoo xamante ni an su mun nañu àgg sax fu gën a koy waaye suñ àggee ci annaarabukumul axlaa rek mbir mi mooy jeex na. te mmh. fi ne nii léegi dem ba fi ne nii fuñ toll foo xamante ni daanaka li ci des mooy ana rabbukumul axlaa nit soo koy fexeel di ko fexeel di ko fexeel ba toujours nga tem ba mu yàgg nga ne man maa la ëpp doole dinaa la wan ne la maa la ëpp doole dëgg dëgg fàtte nga ne euh, àgg nga ci fi firaaw na waxoon ne ana rabbukumul axlaa te soo fa xasee àgg nag yaakaar naa ne jeex na te foofu nag àgg nañ mmh. moo tax àdduna euh, na seen xel daal jàmm rek mooy am incha allah te ñun li ñuy ñaan mooy jàmm mmh. man toujours ni ma koy waxee président Macky Sall ak président Ousmane Sonko ñoom ñaan ñëpp jàmm laa leen di ñaanal ndax jàmm ku ci am jàmm rek réew mi am jàmm ku ci mm. ñàkk jàmm réew mi ñàkk jàmm te man ci réew mi laa dëkk fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa màggee mm-hmm. kon jàmm laay ñaan ci réew mi waaye mm. nag dëgg nag la ñuy àndal Mm-hmm. waaye nag du tere rek la ñuy ñaan ci réew waaye waaye comme ni nga ko waxee procès bi euh, ba tey euh, ni procès Adji Sarr demee woon euh, woote gi am na na benn moment dafa doon jege yoo après mu mujj mu mujj jeex mais est ce que bii yaakaar nga ni dina jeexee si jàmm ndax nag Ousmane Sonko mën nañu ne si kii bi mu jógee procès bi passé moom Mame Mbaye Niang procès bi mën nañ ne comme ni nga ko waxee dafa jege woon li nga xam ne mooy 4 avril bi ba tax na mu mu xawoon ñu xawoon waxtaan ci seen biir si seen diggante ba ba ba ñu ba xëy na jàmm am ndax waroon nañu def li nga xamante ne mooy benn euh, marche euh, manifestation le trois ñu mujj ko aj ginnaaw si waxtaan ci seen biir. Mm-hmm. waaye bi bi bi loolu amee euh, procès bi ñëw demee ni mu demee ñu bëri nag ci ci borom xam-xam yi ak jàngatkat yi gis nañu ne boo gisee procès bi demee noonu c'est parce que dañ ko apaiser pour bañ 4 avril bi yàqu léegi 4 avril bi passé na ñu ngi ñu jàppaat date bu gaaw. date boobu noonu nga xamante ne jàppaat nañ ko tey Ousmane ko bu ci demee ak euh, li nga xam ne jot nañ ko ko condamné lu si dooleeku rek mën na yàq li nga xamante ne mooy éligibilité maanaam mën na ko bañ a mën na bañ a tax mën na tax ba du mën a présenté wu ci li nga xamante ne mooy présidentielle kon boo nee euh, mbir mi ba tey jàmm moo ci mujj te ñu bëri gis ne nag mën na bañ a yegg ci jàmm dina ma jaaxal sëñ bi. waaw xam nga lu sax ma wax la lool mmh. su fekkee ne yaa ngi tudd 4 avril 4 avril feet la woon mmh. bu nekk Sénégal mmh. kon su fekkee ne jàmm rek lañ bëggoon ci feet goo xam ne nii taxan ñu ut jàmm eh, yaakaar naa ne 4 avril lu mu nekk nekk feet feetu korité moo ko gën a nekk feet te pour fàtte na ci ñu ngi jëm ci feetu korité te feetu korité du Sénégal feetu jullit ñi yépp la yàlla dafa am nu muy bindee àddunaam gis nga su fekkoon ni ku la ni kenn ku nekk lu la neex nga def ko ak loo mën a def doom aadama def ko ko konoon ñëpp kenn du jut ndax tubaab yi nootoon nañu tubaab yi bul buñ fàtte ne ko suñu maam yi nga xamante ñoo sampu lislaam sampu diine fii ba tey ku bëgg wax lu la neex wax ko ku bëgg julli si jumaa julli ku bëgg a jàkk dem si jàkk jàkk julli tubaab yooyu dañ doon xeex loolu maam alaaji Malick fii ci ndakaaru mu taxawal visawiya te ku ne xam na ni jamonoy tubaab yombutoon pour loolu am maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ñi yóbbu ko ci géej gi ak li nattu yeeg coono yi mu taxawal dëkk ba dëkk boobu tey mun nañu wax ne bokk na ci dëkk yi nga xamante ni ñoo gën a mag ci senegal ñi nga xam ne fa ñi di wëreekuwaayu ajo su doon tey pexe doom aadama amoon na loolu doo am Maam Alaaji Abdoulaye Niass radiyallahu anhu nga xam ne Gàmbi la jaar na Gàmbi Jolof ñëw ba Saalum taxawal fa ba nga xam ne tubaab bi moo ko daggal fii mu nekk nii lu tax ñu naan lew na tubaab bee ko ko daggal may ko ko mu ko ko mayee ba pare Maam Alaaji tëdd gént am lu ko yàlla woon ci côté marché bi mu ne fii de dafa bëri coow ñu ne foofu la moo nekk marché hmm. mu amaat feneen fu ñu ko joxaat fi ñu ko ko joxaat mu tëdd gis ne fii de baax na daal di xëy tubaab bi seet ko mu ne ko ndax fii lew ma mu ne ko fii lew na la looloo tax tey lew na googu moo indi turu lew na léegi nag mag ñu baax ñoo ñi ngi fi ñaanoon ba jàmm mu am hmm. ndax doomu aadama mën naa jógee fee ne day yàq loolu loolu mënul nekk moo tax ñun ñi nga xam ne yàlla may nañu ñu am luñ xam xam démb xam histoire dañuy dañuy sonn rek hmm. wallahi dañuy dem ba jeexal tàkk tàkk tàkk ñeneen ñëwaat waaye pexe yeneen pexe yi ñëwaat rek waaye yii moom jàll na ba pare loolu moom yàlla def na ko ba pare yàlla moom dogal na ba pare. waaw yàlla mooy dogal kon kon procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang bi en appel bi dara du ci xew jàmm rek a ciy xew. incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla. Mm. jàmm rek mooy xew. Mm-hmm. yàlla nag saa yu nammee bind lislaam bul fàtte ni ne mm. bi muy taxaw dañu jihaat ay bakkan des moo tax dëgg suy am mm-hmm. faw am lu amoon léeg-léeg nit ñëw ne ma waaw lu tax su fekkee ne lii dëgg la am bakkan yu ci daan des ak yooyu ma leen bul fàtte ne lislaam laata muy taxaw ñaata nit la woon ba yonent bi sallallahu alayhi wa di woot yonent bi biir màkk ay mbo ay nitam ak ay mbokkam ñi ko daan xeex mu taxaw woote ñu woote jihaad yàlla wàccee ci ay aaya alquran wax yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko demal nga jihaati te pourtant yàlla mënoon na koo rek de sans jihaad mm-hmm. mais yàlla daf la woon ñi ji ñi weeru koor ci koor ñi dem rocci jaasi di taxaw di cawante tawante ba ña de war a dee dee ca loolu la moo am l'islam ba l'islam taxaw fii tey tey Sénégal pour moom itamit mu àgg ci fi mu àggoon xaj na niveau boobu fow mu àggoon fi mooy mois de mars mooy yii ñu passé woon muy tour deret yi yooyu xaj na loolu la ñu ngi ñaan yàlla muy yem fi jeex waaye li ci des incha allahu rabbi jàmm ak lu neex ak ndam lu rëy rëy mooy am Sénégal incha allah bi xawla wa ci kàttan waaye waaye waxee loolu damay xaw jaaxle tuuti bi tàngagul sax day door day doog a commencé maanaam liy ñëw ci kanam muy gën a doy waar li nga xamante ne moom la ñu weesu te gis nañu li ñu weesu ni mu méttee woon ba ku ne di ci muslu waaw xam nga xam nga xam nga nit ku nekk ak sa xam-xam na ñoom fañ gëstoo seen xam-xam mm. ba teg seen xam-xam wane ne lii la ak am na ñoo xam ne ci yaakaar la ñuy waxee waaye su fekkee ne xam nga nan la yàlla di doxalee àddunaam mmh. muy benn mmh. ñaareel bi ci topp xam nga yàlla cëram nan lay mayee doom aadama ci nangug ñaan mmh. nga ñaana ñaan ba yàlla feeñu la ne la li nga doon ñaan ña may naa la gis nga mag ñu baax ñi fi doon ñaan bala ñoo ñaanal seen njaboot dañoo ñaanal Sénégal ba pare xam nga tey soo ma nekkee di ñaanal nekk ci biir kër gi di ñaan jàmm di ñaan jàmm te yéen ñii sama njaboot amu leen jàmm man oo ma jàmm mag ñu baax ñi dañoo ñaan ci Sénégal jàmm ba pare te pourtant li tax seet pourtant coow li li muy rëy rëy rëy rëy ñi koy wax mosugoo dégg ñu naan la waaw coow li kër këru këru diine yi moytu leen seen dëkk ba daan tàkk nangam nangam pourquoi parce que yaakaar nañ ne ñaanang fa mais ñaan googu jiitu woon na lett mu yegg si si këru diine yi yàlla ñoom mag ñi dañoo ñaanal senegal ñag ko ba pare biñ ko ñagee ba téye ko ci seen loxo ci lañ door di taxaw na bàyyi yàlla nag loolu mi ngi fi ba tey ba ilaa yow mi diin kenn mënta yëngal Sénégal. kon xanaa loolu moo moo waral kilifa diine yi ba tey waxuñu àddu ñu toog ne tekk ndax dañoo xam ni comme li nga wax moom la ñu xam. waa xam na ñoom am na lu ñu xam waaye ñoom tamit ñu ngi wax xaj na kilifa euh, am na ñoo xam ne su ñuy wax li ñuy wax ci suuf lañ koy wax ndax àdduna bi moo toll foofu léegi loo wax rek ñu am fu ñu la dëkkale tey soo taxawoon ñu ne xalifa nangam woo président Macky Sall rek nga dégg am na ñu ko féetale fii am ñu ko féetale fee léegi nag ñoom la ñuy def nañ ko def ci suuf ñoom ña ngay liggéey di def la ñu war a def donte la daan am na yoo xamante ni nag suñ fa àggee nga ñaan nit mayu la da ngaa war a fësal ne man di ñaan naa diw mii mm. mayut ma kon man sama jaan wàcc na pour setal sa bopp xaj na mm. foofu moom suñ fa àggee àggaguñ fa xaj na mm. waaye ñoom li ñu war a def ñu ngi koy def ba pare te xam nañ ne it Sénégal kenn mënu ko taal kenn mënu ko Sénégal loolu moom ala kulli ak koo man di doon xayu ci yow lay këpp rek ci yow lay këpp rek ñi nga xam ne ànd nañoo yow pour taal Sénégal mm. waaye jàmm rek lay lay lay allah. kii di Ousmane Sonko bëri na li nga xamante ne ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom bëri na ay arrestation ñu bëri ñoo xamante ne eh, jàpp nañ leen yoon teg na leen loxo eh, gis nañu ne ni ki démb ki nga xamante ne tam mooy Bassirou Diomaye Faye moom tamit eh, daal di nañ koy teg loxo démb arrestation yu bëri ñi nga xamante ne ñëpp daanaka gis ñi ànd ak Ousmane Sonko gis ëpp tey ñu ngi ci kaso bi. tey xam nga suñu waxtaan dama lay nettali rek lu mm. ëpp li ma ji wax ci yow. ci histoire ci ngay nettali man nettali na euh, jamono yonent yi suñ daan xeex dañ daan am ñu ñuy jàpp ñoom la ñuy mhm. wax jaam mhm. ñooñu ñi daan jàpp noonu euh, dañ daan jàpp ay jullit jullit ñi dañ daan jàpp ay ay yéeféer waaye yéeféer yi dana am ñu daan jàpp ci ay jullit suñ leen jàppee ñu ne ah yéeféer yi de jàpp nañ nangami nit ci xare bi mhm. xare na ku fa dem foofu loolu am xaj na ci liñ nekkoon la foofu loolu am ala kulli ali mënul ñàkk su fekkee ne jàmmaarloo daa am te amut kenn kuñ jàpp mm. kon jàmmaarloo amut ay naxante moo amoon moo tax comme jàmmaarloo amoon na amoon nañ l'islam bi mu ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su indi ne ko ah eh, jullit ñi de ray nañ ci nangami nit mm-hmm. jàpp nañ ci nangami nit léegi nangami nit yooyu mu am si saxaba yi am ñoo xam ne leen di jox mission ne leen yéen yéenay dox médiation boo xamante ni pour ñi jàpp ñi man leen a bàyyi ñooñu nag après ñi ñi dem defi médiation ñi ciy bàyyi ñi ciy bàyyi tey médiation boobu moo amal moo tax ñun li doon démb rek moo ñëwaat tey maanaam histoire rek rek répété rek moo ñëwaat tey mais sëñ bi dama gis ne saa yu saa yu ma waxee jëm ci euh, maanaam boo ma waxee laaj la ci Ousmane Sonko da ngay indi histoire yonent teg lan moo waral loolu lan lan moo jotale Ousmane Sonko ak yonent déedéet bokkute Ousmane Sonko hmm. euh, Mmh, mmh, su ma bëggee wax sax maanaam damay wax yonentu ay maqaamaam dafa kawe mmh. ay saxaba saxaba waxuma saxaba waaye nit ku baax sax ay maqaamaam dafa kawe yàlla nag mooy xam ki gën ki gën mooy ki gën a rafet xol ki gën mooy ki a ragal yàlla man ak moom xawma ku gën waxuma laa bay xam keneen ku gën waaye maanaam histoire laa lay nettalil man waxuma waxi Ousmane Sonko ak ay yonentu mais histoire laa lay nettalil xaj na histoire yoo xamante ni euh, xam nga su fekkee ne da nga nekkoon jàngkatu tubaab nga dugg ci école ngi di la jàngal nangam nu ñuy yoree réew nu ñuy nangam te mm. jàngaluñ la histoire yu ay yonentu soo demee ba war a xeex war a am histoire ak sa digganteeg ni doo ci xalaat histoire yu mm. waaye tey lii su doon seen xeex bi dafa amoon ay lajjoor ay tubaab yi kon ñoom danañ wax ne ah kon attention attention nañ def te kat mm. nii la yàlla di doxale gis nga àdduna doomu aadama euh, yàlla moom lu ñëw rek ci histoire la xam nga lii tey ëllëg dinañ nekk histoire boo xam ne nii suñuy sët dinañ ko bind teg mm, ko mm. su ëllëgee beneen pouvoir bu fi ñëwaat bëgg a am ñu ne la ah histoire Ousmane Sonko diw amoon na fi moo tax loolu la yàlla di répété ci kaw kii ñun ci alquran rek la ñuy xool di wax ñun li ci alquran rek la ñuy nettali mhm. loolu rek moom nag moom nag moom moo ñu wan lii moo ñu def nii mhm. tey soo xoolee tey Idrissa Seck ak ni mu génnee am na lu mu indi ci nga am lu mu la fàttali ak mhm. keneen ak keneen yii ñuy indi procès par procès yooyu yëpp amoon yu fi jaaroon tabaarakallah sëñ Touba maam Sëriñ Touba bi koy yóbbu ci géej am na yu ko tuumaaloon buñ di indi rek ñu indiwaat beneen buñ yëpp yàlla da koo faxas dem maam alaaji Malick si mhm. maam alaaji Abdoulaye Niass maam limaamu maam keneen keneen kenn ku nekk ak natt soo demoon seen gër yi bañ si liñ ak lañ nëbbu mhm. seen histoire da nga xam ne dëgg rek kay dëgg ku àndut ak dëgg perte fi nga laal sànq fa bëgg ñëw muy euh, Idrissa Seck sortie bi nga xam ne def na ko démb ak kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko si na ba ci fin bi nag bi ko journaliste yi tàncee tànc ko tànc ko lay doog a wax ni dafa présenté wu tey naka nga gisee loolu Idrissa Seck nee na dafay présenté wu présidentiel 2024 waaw xam nga dafa am nit ñoo xam ne mm. yàlla dafa ubbi seen xel mm. xel mu ëpp nag baaxul loolu dañ koy jàngale xel mu ëpp dalay dalay na naxasal maanaam doo li nga bëgg uti toujours doo ko am maanaam da nga naan li daal man daal ci micro bii laa bëgg a jëli waaye nan laay def ba micro bii ma jël ko te nit ñi xam ne moom laa bëgg a jëli eh, soo bëggee jël micro bi da dem ne micro bi laa bëgg jël nga xeex fexe xeex ba jël micro boobu su la koy jàmm di may ngay may am jàmm ba jël ko Idrissa Seck nag li mu bëgg xaj na day bëgg di muusante ko nangam di nëbbu nit ñi te Sénégal am na loo xam ne soo koy ut deful nii da ngay def dëgg xam nga Idrissa Seck am na jamono li Ousmane sonk am nii ci mbooloo amoon na ko. Mhm. li Ousmane sonk ñi koy woo tribunal nit ñi di ko topp. Idrissa mhm. sekk amoon na ko. Mhm. waaye naxante liñ gëm Ousmane Sonko ci diine muy dagg ay ay alxuraan ni ñi di ko jox Idrissa amoon na lu jege lool donte le melutoon waaye amoon na lu ko jege waaye xam nga lu ko yàqal. naxanteeka musante ke yàlla moom dëgg rek la xàndal yàlla waqulil xaq ku nekk ci dëgg yàlla ànd ku nekk ci dëgg mënoo muusa ko waane ba mu nax yàlla yàlla mënoo ko nax hmm. te yàlla nag moom jikkoom mi ngi ko def ci maanaam bëgg-bëggam mi ngi ko def muy jikkooy doomu aadama hmm. léegi nag soo naxantee ne ñëw taxa wër a wër a wër a wër ba pare wax léeba léeba léeb ba teg say léeb yalla dana la pare nga mu ne ah mu ne la xoolal sénégalais yi rek tey bi Idrissa Seck defee kii beeg léegi hmm. xoolal ci diggante senegal si seen garam place yi ci gàmmo yi ci internet bi ngay déglu rek koo ci dégg doo dégg mu ne mukk mun ne la ah man de Idrissa Seck convaincre na ma ànd na ak moom lii xamoon naa ne lii la rek mm-hmm. xamoon naa ne lii bi muy dem ci Macky Sall yi mburoog soow xamoon naa ne lii la xam nga moom am na lu mu wax nee na bi mu demee président euh, présidentiel bi mu jëlee euh, kii bi opposition bi ñëw nañ ne ko dañuy def recours mu ne leen a ah, kon jëru ko mm-hmm. jëru ko nangam ak nangam ak nangam tey mu door de waxu ko woon mm-hmm. toog ba heure bi door di ko wax xam nga kon am na jeu bu ci nekk. Mm-hmm. su fekkee ne Ousmane sonk jamono mois de mars foofu la gënoon a métti fa la dégg gënoon a métti doxu ci waxu ci ba toog ba heure bi muy door di dem kër kër Ousmane Sonko. am na lu xew mm-hmm. jamonoy Ousmane Sonko yi coow li ñi naan Adji Sarr da musta génn wax ñi toog ba présidentielle jot ñi des ay quelques mois mu génn wax kon kenn ku nekk am na sa xel lum lay may. Mm-hmm. ne lu na lu bëgg waaye nag moom xañ na la bëgg am na su fekkee ne dafa damaa yaakaar ne dafa yaakaar ne dafa bëgg a nekk mm, kii boo xamante ni état bi moom la ñuy àndal pour présidentielle mm-hmm. euh, euh, war juuxu dina jóg fu ñu ko foogee incha allah mm-hmm. maanaam moom bu nekkee bu fekkee ne moom la ñu bëgg a teg fekkee ne moom dafa yaakaar mm-hmm. wala ñi dik ko ko yaak yuuxu dana jëf fi ñu ko foogee maanaam moom moom daal su ma doon man su ma laajoon sama xalaat dama naan ko gëmal sa bopp demal sa bopp àndalal sa bopp mais soo buggee di def nii mhm. tey soo waxee ñii ne Ousmane Sonko lay àndal ñii ne état àndal nga bëgg nekk ci diggante bi xaawulaay mhm. wala doo dem mukk mm. te ci loolu lañ nekk nag. dëgg la parce que nit ñi seen xel lëndëm na lool ci ci visite xam ne def na ko dem dem seeti ji Ousmane Sonko. waaw loolu mooy xaawulaay wala xaawulaay rek xam nga mm-hmm. su fekkee ne ne maag président ñoo reerandoor mm-hmm. jógee fa xëddandoor ak kii mm-hmm. te ñaar ñi nga xamante seen histoire su fekkee ci jàmm rek ngay dox te yow wax nga ne mën ngaa eh, eh, dalal dëkk bi te li nga wax yëpp amagu dara lu ci nit ñi mën a teg ni lii leer na kon xaawulaay wala xaawulaay la dëgg kon euh, fi ñuy tëjee actualité bi mooy euh, ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy euh, Ousmane Sonko ëllëgam ci politique naka lay demee ndax tey bu fekkee ni procès bi nee nga nag dara du xew waaye procès bi moom nit ñi tiit nañ ci ba xalaat nañu ne tey condamnation mën na ci am ba nga xamante ne tey Ousmane Sonko mën na bañ bokk ci li nga xam ne mooy élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal est-ce que Ousmane Sonko dina bokk waaw wala déet. yonent yàlla Yusuf alayhi salaam. Hmm. dafa am buur bu fi tasee woon nag. Hmm. Euh, ci salexa ci buur bi ci jabaru buur bi am lu mu ko nopp bëgg ko bëgg ko sàkk mu bañ mu am lu mu ko tuumaal euh, yàlla setal ko ca loola mm-hmm. ci set boo xamante ni comme nit ñi setalee Ousmane la mm-hmm. parce que euh, da yàlla dafa wàccee ne maanaam su fekkee ne yéen a ngi bëgg a àtte yonentu yàlla Yusuf alayhi salaam xool leen ba xam su fekkee ne yëreem bi ci kanam la xottee ko mm. xam leen ne jigéen moom moo doon sàkku jigéen ki su fekkee ne ci ginnaaw la rek da doon daw jigéen gi xotti mbubbam ñu xool muy ca gannaaw ñu ne mm. kon dëgg-dëgg Yusuf alayhi salaam set na mm. bi mu setee ci loolu terewut dañ yeneeni ci dañ koo daganaatal nekkaat di ko tegal ay coono di ko tegal ci ana ba mu nekk ci buur ba toog ba yonentu yàlla Yusuf toog buur nekk buur boo xam ne moo gënoon a neex ak nguuram Ousmane Sonko noonu la ko yàlla di jaarale incha allah bi xawlillahi quwwati ñun léegi ci li ñuy seet mooy nañ seet ndax président Ousmane Sonko su nekkee su duggee ci nekkee pale hmm. ndax réew mi naat gi mu ñu wax ndax dana am wala du am ñun ci loolu lañ man fi ne ni jamono ji ci loolu lay gëstu mais daal dina ko doon moom dafa leer loolu moom incha allahu rabbi ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala doomu aadama nag yàlla dana la tracé lu jub hmm. nga tegu ci yoon wi waaye nga wàccee ko sa bopp su wàcceewul boppam ci yoon wi kenn mënu ko fee wàccee ndax yàlla teg na ko fa ba pare métti métti yàgg-yàgg yàlla teg na ko fa hmm. moom mun na def lu ko yàlla jéppee mu tegg ko te gëw ne dana ko def moom xam na xam na luy yàlla xam na li li li ormal doomu aadama fii bi nga ormal doomu aadama yàlla nga koy teg ci loolu ndax moom ay bidéwam ormal doomu aadama rek moo ko kiyal su xaawi woon suturaal doomu aadama rek yàlla indel ko ay nattu nattu te moom xam na loolu moo tax fii mu nekk nii directement ñi ngi ko li ñu ko tegal ci yoon wi directement benn siège lañ teg yàgg naa lay wax ne ñi ngi teg benn siège or mbooloo bari di ko waaye Ousmane Sonko rek la yàlla may moom kenn kese mu dox te kenn baarewu ko ba yegg ca siis ba toog ñi si des ñëpp kenn ku ne yaa a bi moom nag waaye kenn toogu a moom su bokkee mooy gañ waaye ñëpp jàpp nañ ne du bokk mm. waaye siis ba nag moo ci sori waaye moo cay toog allah bi xawlilaay waxooti ci kàttan yàlla muy siis bu or boobu mm. allah kon yaakaar naa loolu moom eh, leer na eh, kon xam naa ñu daal dugg rek ci li nga xam ne mooy pot yi potu la. waaw xam nga comme mm-hmm. ñun ci lislaam la ñuy yëngatu. Mm-hmm. di ci ñaan. Mm-hmm. suñu aajo yëpp mooy Sénégal am jàmm. Sénégal mooy jullit ñi jullit ñi mooy àdduna bi yëpp. ñu am jàmm am kii noonu la ñu suñu maam Alaaji Abdoulaye Niass bàyyee. moom lañu suñu maam Khalifa Niass bàyyee moom la ñu suñu wajur Xaaji Babacar nekk ñaareelu Khalifa bi bàyyee. ci loolu lañ toog. ci lañ nekk bay yàlla may ñu suñ doole ñuy tabax juma alhamdulilah yéggagut sax waaye mi ngi sori lool ci lañ gëstu ci xam-xam ci diggante xob ak ren ak loolu ndax xam-xam du téye sa course rek toog rek mm-hmm. di sabaal yàlla ba yàlla won la ne la lii mooy xew ci réew mi mm-hmm. lii mooy def nii ñaar ñii di xëccoo kii mooy gañe dëgg-dëgg xam-xam boobu baax na waaye nga gën a fexe mm-hmm. yaatal sa xam-xam ba nga xamante ni nit ñi dinañ ci mun a jariñu ci yi nga xamante ni nañ tawat nekkul alxuraan dañ ko fee wàccee rek nit ki ne la damaa am biir buy métti wala bopp wala soxla bii nga mm-hmm. bind ko jox ko ku mu raay wala mu sango aajoom faj waaye da ngay fexe ba garab yi yàlla wàccee lan moo tax garab yi yàlla wàccee ko mm-hmm. ak garab gi ak gii lu tax nuroowuñ lu tax bii wex bii saf suukar bii saf mm-hmm. xorom bii saf kaani léegi nag nan lay def ba doom aadama feebaram yi kii biiram kii boppam te métit yi wuteewul nan la ñuy def pour garab gi léegi nag ñu ciy dimbale yàlla di ñu ciy dimbale ci ay xas ak ren ak i nàngam ba yàlla may ñu ci loola alhamdulilah ñuy jógee nag ci diggante niveau fàq garab ci xob yi mhm. wala xas mi wala ren yi di ko xooj di la ko jox ñu ne mhm. pourquoi pas ñun mënuñu gën a xarañu suñ bopp ba nga mhm. xamante dinañ ko def ay kii ba nit yi man koo gën a utiliser ñu dem ba mu yàgg ñu def ko ay sunguf ngay ubbi boîte yi muy ay sunguf yoo xam ne soo demoon tey ci diggante liñ dëbbul ay xob ak ren ñi dem ba mu yàgg ñi def ko ñu ne waaw nit ki am na ñoo xam ne dañoo am estomac. Mm. pour ñu naan lu kii dafay xaw jafe. Mm. nan lañ koy defee pour ñu def ko ay comprimé ñu jël ay sungu fukki xob def ko mm. ba mu nekk comprimé yoo xamante ni mm-hmm. traditionnel la. Mm-hmm. yoo xam ne soo ko ubbi woon tey. Mm-hmm. soo tojee comprimé bi soo sottee rek ku ñu yàgg a topp gis na ko. soo sottee rek mu nekk sunguf. muy sunguf ta soo koy naan doo am estomac. ndax ñoom ñaar mun nañ bokk muy jabet. siti hémorroïde Mm-hmm. Euh, cancer mm-hmm. euh, estomac bëri na garab yoo xam ne yàlla may nañu ci faj mm-hmm. mais nag léegi ki xam ne ni su dee sunguf bi la mu war a segg tàngal ndox segg ko naan ndox mi tuuti pund bi xaj na du am temps boobu ñu defal ko comprimé moom su lekkee ba suur day génnee benn rek seex dem. waaye mm. comprimé boobu bu ko naanee su nguuf def benn jeexital. si parce que boobu amul benn effet secondaire amul benn effet secondaire. parce que mm. lu tax sunguf bi mënu ko jël naan ko ni parce que estomac moo tax estomac biir ndox fa mu war a dem ci butit mm. bala nga faa jaar for mu jaar ci es fi xol di nekk xol nag mooy tax loolu di indil jafe-jafe moo tax ñu defalal ko ba nga xamante ni alhamdulilah rab même sax sunguf bi du la soo amee estomac mm-hmm. wala euh, ulcère wala dara du la def dara du la def dara parce que naano sunguf bi mais soo ko seggee ba set mm-hmm. nga jal ndox mi nga naan mm-hmm. ndox mi wexut defut dara comme ni ndoxu robinet mel nii soo ko kiyee noonu lay mel tabaarakallah mm-hmm. garab yi nag bari na ay façon am na yoo xam ne wàllu jabet la ndax jabet ku ne gis na ni suukar jamono ji àdduna bi léegi feebar bu yaatu la ci ñu xamee ban type nga am ñu xam seen traitement wax la ko defal la ko noonu la ame hémorroïde xam nga mbiru euh, góor ñi léegi suñu waxee ñu ne dañuy am ay néew kàttan néew kàttan mhm. li ci ëpp lu koy joxe mooy ñetti feebar yi suñ mhm. tasee ñaari feebar yi suñ tasee suñ ñëwee rek ñetteel bi doon néew kàttan mhm. mooy euh, ndoxu siti ndoxu siti am na fi ay garab garabam yoo xam ne ay ndoxu siti la su fekkee ne doom ak kenn ki dafa am ndoxu ndoxu siti muy siti faju ko day dema dema dem ba mu indil ko hémorroïde xam nga li siti la bii euh, kii la hémorroïde la bii néew kàttan la léegi su fekkee ne da ngaa yor siti mhm. fajoo ko day dem ba yàgg mu indil la hémorroïde hémorroïde nag mun na buy génn interne wala externe buy mhm. génn mhm. wala mun na nëbb mun na la jàpp sa ndigg wala say tànk wala yooyu siti it mun na la def ñun soo ñu woowee wax ñu ko rek ñun danañ xam ban feebar nga am soo ko fajut da lay indil eh, eh, eh, kii hémorroïde soo fajut hémorroïde da lay indil néew kàttan léegi nag nga dem am na sëriñ soo xam ne da fay dem ñu jox la néew kàttan nga faju ba sonn te doo wér wala ñu jox fekk yow siti la mais doole mooy da ngay faj sa da mm. mm. ba mu wér soo ko fajee amaana néew kàttan bi hémorroïde bi a faj te mu wér mm. allahu rabbi ci kàttan yàlla noonu la amee ci wàllu jigéen guy gis régal régalam du normal maanaam su waree ñëw ñu ne la war a mu am retard euh, ba ay la cinq la nangam mu ñëw mm-hmm. wala règle bi di métti ñii de koy wax règle douloureuse mm-hmm. yooyu yëpp am nañ ci ay garabam mm-hmm. ak asma ak li nga xam ne ni mooy ay tuufaay tuufaay yi nga xam ne nii ku am bët cataracte sa bët yi gisatut wala yow soo weer doo gis ci ay tuufaay yoo xam ne soo koy jël di ko utiliser rek sa bët yi leeraat fam nekkaatoon incha allah bi awla xóoti mu am it affaire douleur nit ki am méttitu yaramam wala biiram di métti wala nangam muy lii moom laay wax toqal mu sedd mm-hmm. toqal ci ndox rek naan rek métit bi nekkoon ci yow yëpp sedd doon leen nag bii ko wéral waaye dana kalmul métit bi ba nga mën a nalaw mm-hmm. mën a lekk man jox garab yi lay jox nga man ko utiliser mm-hmm. incha allah garab yi daal suñ ko doon wax bëri na ay façon waaw feebar yi moom bëri na alhamdulilah yàlla ñu ciy may ndam nag sant yàlla oh, ak ñi nga xam ne si dañoo am biir biir bu rëy ñi bëgg mu wàññeeku ballonnement tension euh, ak euh, li nga xamante ni mooy mm, mm, euh, prostate mm-hmm. yooyu yëpp yàlla dimbale nañ ci alhamdulilahi rabbil alamin ñi ngi ñi ngi ñi ngi ciy liggéey ñi ci ciy am ay résultats yu mag ñaan ñaan ñaan bëri na te bokkul wàllum ñaan wàllum seet waaw xam nga ñaan mm-hmm. toujours dama koy faral di wax ñi may mm-hmm. topp xam nañ ko ma ne leen ñaan ñetti façon ñaan moo am la nit di topp dafa am koo xamante ni si ñaanam moom amul jot wala amul temps wala ay nalaw mënu koo may mu tëdd guddi toog ba deux heures trois heures du matin mu coog mm-hmm. di tuye kurusam di wirdo di ñaan ba fajar kooku am na ñoo xam ne amuñu jot mënuñ mënuñ loolu mm-hmm. yàlla leen nattoo ci nalaw wala mu nattoo leen ci leneen ba mm-hmm. mënuñoo toog koy am na ñoo xam ne ci seen ñaan ci kurus googu lañ koy am na ñoo xam ne ñoom toog ba six heures du matin seen kurus di ñaan ñaan googu nag dafa rëy dafa kowe alhamdulilah rabbil ñun de yàlla ni mu ngi ci ñaan googu ñu koy jéem te ñu ngi koy def am na ñoo xam ne ñoom da nga leen wax sa aajo ñu bindal la saafara aaya bi wala xaj wala lii nii lii lay tolloog wala suguf si wala ren bi ñu xooj jox la ko sa aajo fajo mm-hmm. ñoon ci ñaan goog lañ man am na ñoo xamante ni ñoom passé nañ foofu maqaamu bi gën a kowe lañ am mm-hmm. da nga leen di wax sa soxla ñu ne la tàllalal nga tàllal ñu ñaan ñi tëfli loolu la suñ mag ñi baax yi ne mm-hmm. moo tax këru këru diine yi soo fa demee soo demee lu ci ëpp ñoom duñ la jox da dem wax rek ñu ne la tàllalal mm-hmm. nga tàllal rek ñi tëfli la rek nga raayu mbooloo mi yëpp ànd doo raayu ñoom ñëpp mm-hmm. seen aajo yàlla faj ko kenn ku ne ak kii ne sans bopp bi kii ne biir bi kii ne bëgg tukki kii ne nàngam te benn ñaan bi sëñ bi di tàllal di ñaan su tëflee rek kenn ku nekk soo yéenee rek kenn ku ne aajo fajo boobu nag ñaan moo gën a maqaam ñaan googu nag si suñu mag ñi lañ ko doone kon mel ni suñu maam alaaji Abdoulaye Niass radiyallahu anhu maam Serigne Touba maam alaaji Maari ñooñu soo demee ci seen do sët ba léegi taaliba yaa ngi fa di dékku ñaan di daw di dem fu ne di mm. ziyaare dékku ñaan moo tax ñaan moom dafa bari ay façon mm. ñun nag yàlla boole nañu ci sëriñ gi ci famille sëriñ bi nga xam ne dañuy tàllal loxo ñaan tëf li mm. yàlla boole nañu ci loolu ñu ngi koy def yàlla na yàlla nangu loolu beneen bi ci topp mooy wàllu bind bi yàlla def na ñu jàngi nañ xam nañ xàmmee nañ mën nañu bind te xam nañ aaya alquran yi lan ak lan mooy faj ak lan ak lan ñi ngi def loolu mmh. beneen bi ci mooy ñeme nañ suñ kurus wax mmh. dëgg yàlla ñi ngi sant yàlla ci ñeme suñ kurus doon nañ ci suñu waajur alhamdulilah ah, kon mi ngi noonu xam naa rek waxtu bi tënk nañu ñu bàyyi la eh, tàggatoo boo amee message booy lancé waale rek waaw di mmh. sant yàlla di ñaan Sénégal jàmmu am fi comme niñ koy faral di ñaanee waaye di wax sénégalais yi ne leen jàmm rek moo fi am yaakaar naa ne réew mi moom jàmm fi xaj président mm-hmm. Macky Sall tey ku ko fëggoon guddi ne loo bëgg ci réew mi mu ne la jàmm mm-hmm. président Ousmane Sonko soo ko fëggoon guddi nekk loo bëgg ci réew mi mu ne la jàmm mm-hmm. te yaakaar naa ne coow li coow li ñoom ñaar rek xaj na la ñuy wax naan ni donte le su dee ci Adji Sarr la donte le su dee ci Mame Mbaye Niang la waaye ñu même Mame Mbaye Niang soo laajoon tey mu ne la Sénégal jàmm laa fi bëgg comme comme ñun ñëpp jàmm lañ bëgg nag te Sénégal mag ñi ñaan nañ fi jàmm loolu yomb na nañ ko waxtaanee rek jàmmu am mhm. nañ seet nan la ñuy defee solution rek jàmm am mhm. te yaakaar naa comme procès bii di ñëw ni ma ko waxee woon solution bi li ma ci gis mooy waxtaan moo ci am rek waxtaan moo ciy am rek moo tax ma ne la jàmm yàgg-yàgg jàmm mooy am ndax Sénégal moom dëkk waxtaan la dialogue rek loolu rek la ñuy def moo tax coow li coow li li muy bari bari bari bari wa dañ koy waxtaanee rek mu jeex ni kenn ku nekk am la nga war a am séddoo la rek bu kenn kii dina am lii manqué lii kii am lii manqué lii ndax coow luñ ciy gis mooy njooloo muy tëg di mm. xëccoo bool kenn ku ne dana président mak Sall ak ñi mu àndal mm-hmm. coow li dina am luñ ciy gañe ci waxtaan wi ne ah président Ousmane Sonko da nga bàyyi lii kat jàpp li mm-hmm. mu ne waaw ñu ne ñu ne koy président Macky Sall da nga bàyyi lii jàpp lii mu ne waaw Sénégal déggoo Sénégal am jàmm ku boobaa su koy gañe du suñ Sénégal ay gañe moo tax ma ne leen jërut tiit jërut nangam Sénégal dëkku jàmm la incha allah jàmm rek a fi am incha allah ci kàttanu yàlla am mm-hmm. na yàlla saxal fi jàmm mm-hmm. wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu